benn ndaje boo xam ne forum la pour ñu waxtaane ci ay proposition yoo xam ne dañ koy defal conseil municipal bi war a dem ci débat d' orientation budgétaire forum bi nag cinq yi ñu ngi koy def Euh, di ci dajale ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu commune bi ci wàllu développement muy comité de développement quartier yi muy commission yi nekk ci conseil municipal muy conseiller yi muy service technique yi nga xam ne dañuy liggéey ak euh, ñun muy partenaire au développement yi muy organisation de la société civile mu nekkoon donc benn waxtaan boo xam ne dañu échanger ci li nga xam ne moom mooy taxawaayu tey commune de Fatick ci wàllu budget ak bii nga xam ne moom la ñu jëm muy 2019 yan moo nekk yan moo war a nekk priorité population bi te commune bi war ko décliner ci budget mais c'est également ci wàllu koom ci wàllu recette li nga xam ne euh, levier yi ñu war a actionné pour yokk recette yi commune Fatick loolu nag nekk na rencontre boo xam ne véritablement liñ ko doon séntu yëpp am nañ ko parce que ci domaine yi nga xam ne mooy compétence bu ñuy ku ci nekk décliné nañu ay priorité euh, yoo xam ne dañuy laaj conseil municipal bi ñu jël ko en charge orientation budgétaire mais li gën a euh, li gën a assistance bi tey dafa jëm ci les recettes municipales euh, à travers li nga xam ne taxawal nañ ko muy la commission de la fiscalité locale te solom nekk yokk recette commune Fatick donc euh, mu nekk commission boo xam ne vraiment tey ci forum bi ñëpp def nañ plaidoyer pour jox ko jumtuwaay yi nga xam ne moom moo koy permettre mu atteindre ay objectifs objectifs nag dara mu dul ak nekk ñu yokk de 10 cent les recettes de la commune parce que loolu ñuy des ci programme bi nga xam ne moom mooy PACASEN di programme boo xam ne dafay ñëw jàppale commune yi ci wàllu koom Euh, ñu ciy séentu pour année bi nga xam ne ñu ngi ñu ci jëm muy euh, deux mille vingt ñu ëpp euh, téeméeri million te loolu véritablement il faut que commission fiscalité liggéey pour nga atteindre li ñuy wax ne les conditions minimales obligatoires mais les les de performance pour mun a permettre ñu jot loolu en deux mille vingt mais mun a jot également lu ko en deux mille loolu daal mooy li nga xam ne moom mooy solo rencontre bi ñuy wane daal. na ay xalaat yu bëri yoo xam ne dinañ ko jox ko conseil municipal pour ñu demee ci débat d'orientation budgétaire nit ñi mun ko pour que euh, budget bii nga xam ne moom la ñuy tëral di budget deux mille vingt budget boo xam ne dafay tenir compte yoo xam ne moom mooy préoccupation de la